yow jëlal. <laughs> sama doon bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. happy birthday to you Soumboulou di madame Diop. man sa kër maa ngi lay ñaanal soxna si gudd fan gu ànd ak wér ak xéwal ak sutura yàlla jàppale la. Euh, lépp loo xam ni bëgg nga ko ci sa àdduna yàlla na la ko yàlla defal ndax xam naa ni macha allah ji seede ci ma gi xool bu rafet bi macha allah koo xam ni tey lu sa jëkkër bëgg bëgg nga ko lu mu bëggul bëggoo ko ñaareel bi mooy tournage sax boo fay dem ndeysaan lu mu gàtt gàtt daga. asalaamaaleykum wa rahmatullah happy birthday to you Soumboulou di madame Diop. man sa borom kër maa ngi lay ñaanal soxna si gudd fan gu ànd ak wér ak sutura yàlla jàppale la. Euh, lépp loo xam ni bëgg nga ko ci sa àdduna yàlla na lu ko yàlla defal ndax xam naa ni macha allah ji seede ci ma gi xool bu rafet bi macha allah koo xam ni tey lu sa jëkkër bëgg bëgg nga ko lu mu bëggul bëggoo ko ñaareel bi mooy tournage sax boo fay dem day san lu mu gàtt gàtt.